salaamalekum mbokku internetu 24 actu ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk ki ñu toogal tey yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté ti ci mim réew ndaxte mooy Serigne Baye Djily Mbacké borom léegi-léegi ñu bëri daal dinañ koy xàmmee ndaxte moom mooy Serigne ndaw ñi duñ def lu dul rek daal koy bàyyi rek mu daal di nuyoo ak mbokku internet yi koy seetaan Serigne bi nuy naa la. di am baax waa ci teewaay bi di leen baal ci koor gi di leen baal àq ñaan suñu borom boole ñu jéggal ñu fekk ay déwén yu bëree bëri ci daraje seen sëñ dégg nga léegi ni ma ko waxee gis nañ ne yow yaay sëriñu ndaw ñi ñu bëggoon a xam lan moo waral bàyyi ji di léegi léegi <laughs> waaw waaw loolu yàlla dañoo boole ñu ci bëri bëri ci ndaw ñi waaw li sëriñ Saliou di wax defar de ajowak taxoo moo waral suñu yëngu bi li ci ëpp doonte mag ñaa ngi ci waaye ndaw ñi ñoo ci ëpp ñoom yàlla def boole ñoom ñoom ba ñu am sago ak bëgg-bëgg ci lu ñuy def te lépp jëmut ci dara loolu liggéey sëriñ bi ak fexe ñoom it ñu nekk ci seen bopp lu leen avancé loo mooy lu ñu mën a dimbalee seen i waajur waaw suñu exécutif lépp daal lool la pour maanaam loo xam ne lu tax ëllëgu ndaw ñi ëllëg mu mën a jag ba ëllëg ñu bokk ci ñi nga xam ne war nañoo mën a taxaw lu bëree bëri bëri ci lu dul ci fii ci diine yi sax ci àdduna ñu mën a taxaw ci lu foofu lañ am mbégte ak yéene ànd ñoom ci loolu. tamit yaa ngi yëngu ci wàllum ñaan ñu bëggoon a xam mbir mi naka la ñëwee ci yow. waaw loolu la xam nga man dañ naan euh, golo gu ndaw moom lu mën a def <laughs> jéem a jàng yeeg. Mm-hmm. loolu la war ginnaaw bu yàlla defee jàng alxuraan jàng lépp lool rek. gëstu am na ci ndax sonn na ci tëb tëbuñu rek di ko def ndax dem nañ ci fu nekk wax dëgg yàlla am ba yàlla taw fexeel ñu ci bu baax a baax a baax ba moo waral li olof def naa li banki tànk bënkutum xel li banki oom bënkutum xel waaw moo waral mu yaatu ba ku ne xëy na am ñoo xam ne ñooy gisal seen bopp ba tax ñuy wax waaye du pas loo xam ne dañuy toog kii télé di publicité wala di wax wala la neen xëy nit ñi ñoo am yaakaar yaakaar yooyu te yàlla nag nit fu am yaakaar fa lay dem yaakaar yoo xam ne dañuy ñëw tombeek bëgg-bëgg suñu borom yooyee saafara moo waral mu dem ba ku ne di gën a amaat yaakaar bi ku ñëw am ñeneen ñu indiwaat ak yooyu waaw waaye defuñ ko ngir di ko def ngir di ci séntu luñ ci am wala dañ ciy def ngir dimbali nit ñi te yàlla rek a tax waaw luñ ciy def di ci laaj wala leneen wala def ko loo xam ne muy métier ngir toog waaw ndax ñi ngi ci yeneen yu yëngoo yeneen ak yeneen sax waaw. ndax nit ñi dañuy ñëw wax la seen soxla rek nga fajal leen ko wala da nga koy liste xaar ba pare soog leen a waaw waaw xam nga ñaan maanaam mbir mu gën a gaaw adduna bi mën naa ñëw rek nga la sama bopp day métti wala nangam nga yëkkati garab yooyu bopp bi métti jox waaye la ci am solo ci mbir da war a xool lan moo tax bopp bi di métti wala lu ko dal la wala saytaane la wala rab wala nangam yooyu daa gën a gaaw ci yëf yi mooy bu ñu ñëwee xam nga ci biir seet gi dafa bëri ay façon ñu seet koo xam ne pour mën a wax nit ki ay mbiram waaye seet gi yoo xam ne mooy seet listixaar yi nga xam ne nit ki da ngay mën ko ay pour xool li ko dal lan la wala lan saafara nga ko mën a kiyee nga xam ne bu waa du aajo ngay ñëw naan ko nangam da ngay xool sarax nga xam ne bu ko defee mbir yooyee tegg ko nga xool ban ñaan nga koy defal ba xam luy dindi wala luy faj rab wala luy faj dañuy gis bu yàqu dañ naan rab a koy yàq ndax suñu bëri dañ naan rab moo leen di yàqal ndax suñ ji dina faj rab ñaan moo xam koy ñaan yàlla moom ci côté bi ndax yàlla taliwul dara te mooy moo yor lépp waaw moo waral gannaaw bañ kii waaw lépp loo xam ne daal mënuñ ko du suñu mbir duñ ci jéem moom yàlla lu yàlla xiir rek mooy loo xam ne ci lu ñu xam ne am njëkk nag bu ñu ko defee suñu borom tekke loxoom waaw bu leen ñëwee rek bu kii waaye yooyu moom bu dee jëm ci ay faj ak yooyu yëpp moom wax dëgg yàlla yàlla taw fexeel na ci ba moom saa ko defee gis résultat incha allah. gis nañ ne làmb ji bu jotee mbër yi dañuy bëre ba pare di ñaanal Baye Djily na yàlla na fi yàgg te wér ñu bëggoon a xam Baye Djily lan la relation ak mbëri lan la. waaw loolu mooy li ma la wax ci biir yaakaar jooju daa tàbbiwaat fële mooy yaakaar yi nit ñi am ba fu nekk ci àdduna bi nit ñi di am yaakaar di ñëw yaakaar jooju xëy na comme waaw da ñàkk xam nga <laughs> léegi maanaam yaakaar ci biir yaakaar jooju mooy waral muy mbër mi muy keneen ku ci nekki nag sax sant fa nga ko mën a defee lu dul mbër yi ñeneen ñi ña ngay sant ci nañ ko may ndax génnuñ ci télé xëy na mbër yi yeeg waykat yi ñooy génn ci télé bi mooy waral nit ñi jàpp ne xam nga waaye ku ci nekk rek sa te mooy waxal loolu ak ko surtout boo jógee ci tuwaar kontaan mooy waral di gërëm gi ak sant gi waaw waaye làmb jéegi ci bëri bëri wax dëgg yàlla ma wax ñun da am ci luñ nekk ci loo xam ne aajo ju nit ñëw rek ñu mën ci dara dañ def suñ kem kàttan ndax lam nga la nga des moom yàlla mooy mottali ci yu bëree bëri tam ñu ci suturaal bu baax a baax a baax tamit ki nga xamante ni moo di Mouhamed Niang daal ne la tuddee woon ak guddi ñu mel ne kon ni nga mel ak mbëri tamit noonu nga mel ak way waaw mooy li ma wax ne la yaatu gi ci biir yaatu gi ci la loolu lépp nekk waaw muy ñoom ñooy ñëpp gis na grand théâtre bi ci ñu ko tuddoon ci laa bokk bu Mbàkke bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaw jàngkat yi moom ñëpp moom ñëpp jàngkat yëpp waaw aw ñoo mel ci ñee laa mel ñii ci lii waaye ñii dafa rawati ndax liñ bokk mooy xasiday sëriñ bi ñuy yëngu waa di way gaay yu baax yeeg yooyu mooy waral jàppee ni sax day wuute ci ci compas yi léegi nga xam ne mooy bëgg-bëgg bi liñ nekk ñu ne ñu yëngu ci loolu mooy di taxawal ay bis ak di kii ndaw ñi waaw te te àdduna moom noonu rek la nit ki ku amul njëriñ am ku noo koy jëriñoo te ñu ngi xewle ay bis ñoom ñëpp ñu dagg seen yitte di ñëw ko def yëpp kon luñ mën a xewle bu ñu ko tuddee war nañoo dagg suñu yitte dem ca tamit waaw jàpp bu baax ci tamit bëggoon nañoo xam ñan ñooy say waajur waaw bu dee waajuru góor bi Serigne Cheikh Abi mm, waajuram Serigne Abdourahmane Mbar mu sëñ Balla Coro sëñ Balla Coro ak sëñ Touba waajuru sëñ Cheikh Abi soxna bi mu soxna bi soxna su Thierno maam Thierno waaw bu dee waajur bu jigéen bi soxna Njaxate Mbàkke mu Sëñ Abdu Lahat Sëñ Abdu Lahat Sëriñ Tuuba soxna Njaxate soxna Daba soxna Daba maam Seex Anta waaye lépp bu yëpp jàllee waajur yëpp dañoo jaay lépp jënd ko ak taalibe waaw bàyyi ji mooy koo xam ne taalibe Sëriñ Tuuba boo xam dundam jëf du ko fas yéene jaamu yàlla ak liggéeyal sëriñ bi rek waaw ginnaaw ñaan yi ñuy gis tamit yaa ngi koy def gis nañu tamit nga yëngu ci wàllum social gis nañ ne ndogu ko weeru koor bu jotee da ngay organiser ay ndogu ak ay ndimbal yu ni mel ñu bëggoon nga ñëwoon ñu ci mbir yooyu. waaw mooy li wax ba am nga adduna moom yëf yi li naan li naan yàlla dimbali rek moo fi nekk mais jàmbar si bu xëy dax jàmbar amul kuñ dimbali moo am te ba bañ ba am yaqin ne yëf yi du ci ndaw du ci mag waaw te yàlla dafa bëgg ku nekk looy looy looy looy looy looy séentu ëllëg rek nga teel di ca nab nawi ba bu ëllëgee mu mën a gën a jàppale li ngay séentu ëllëg fii nga ko mën a liggéey waaw ñu dëg ma lépp mooy ci liggéeyal sëriñ boobu taxawal ay bis waaw ci biir taxawal bis dem ba ci biir yaakaar yi di bawoo fu nekk ci biir yaakaar yooyu nag ñu ciy def suñu kem kàttan ngir jéem a dimbali nit ñee ko def yëf ci luñ mën a ko néew yàlla diñ ci dimbali ndax ku yàlla liggéeyloo dala jox ay jumtuwaay jumtuwaay yooyu muy jox nag au lieu que ñu koy defee fañan foo xam ne ëllëg leen mën na caa fekk waaw te dañ jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi mooy waral muy luñ mën a mu néew mu bëri rek ñu fas yéene muy weeru koor màggal Tuubaa safar bi jënd ay nag joxe taxawal ay bis bu njëkk daa lañ ko def sax ajjuma bu nekk xanaa Cerno sax lañ ci daa àndal moo daa yëpp Mbàkke ak gër bi ba Dakar fu ne def nañ fa ay bis waaw taxawaloon ko bis yu bëri moo yaatu lool sax dem ba maanaam mën naan koñ bu nekk ndaw ñu taxawal nañ fa ay daayira daayira yooyu nga xam ne liñ doon séentu di ci sonn ko def yëpp coono boobu dem na ba doon lu suudewu loo xam ne bañ demee ba amatuñ comme jot gi di ko yaatal faneen ci yeneen régions yi sax teewut ndaw ñi ñu gis ñoom ñu ñàkk ñoo gis loolu ñu doon ànd ak ñoom ñu ngi ciy def ba dañ am woon yéene di ko defee ñoom léegi ñoom pas-pas bi ñu koy defee sax moo raw donte seen fukki dërëm yi ngi seen nàngam yooyu sax day dem ba day fawxa lañ doon def nga xam ne kon lañ seen doon daal sëriñ bi teg na ci loxoom bu baax a baax a baax waaw lii defuñ ko ngir comme di koor geeg yi xam nañ ne jaamu yàlla gi te lu ci gën a la ay def rek bay gën a yokk mooy waral ñuy doon góor di ko di ko defee noonu ba nii ñi sax ñu teree kii sax ñu ngi koy am ñu ko organisé di ko def comme ni ñu kii yeeg euh, dajoo euh. ren euh, jëfin yu bëri dafa daal di soppeeku ndax mbas mi dugg ci réew mi ñu bëggoon a xam comme que ndogu nga daal daan nga ko def di ko wootee ci jox ñi ñu ciy lekk yu ni mel léegi ñu gis ne mbir yi soppeeku na ndax jàngoro ji dugg ci réew mi ñu bëggoon a xam bàyyi ji ni naka lay continuer di def yooyu waaw gone yi daanaka génn waaye noonu la ñuy def léegi dañ ko wàññeeku na sax ndax waaye yi ñëw léegi bëreetu na soixante personnes cinquante yooyu rek xam noonu lañ koy jëli yenn yóbbu yeneen jënd ay mburoog ay yooyu defar ay defaral gone yi ñenn ñi sax la ñu ndogoo soog a dem yooyu noonu ndax comme que mm, lu feebar beeg yëpp sax dañu ay jaamu yàlla lañ te luñ mën a nekk rek lu yàlla nangu dogal suñ suñ jëmm ji rek dañ koy nangu mooy war yooyu yëpp sax taxul ñuy moytu waaye ndigalu sëriñ bi la ñuy gën a sàmmonte waaw jëfee digal suñu borom ba noppi am kilifa moom fa mu la jaarloo rek fa ngay jaar mooy waral bi état bi joxee yi ñu ci war a jëfandikoo yëpp teewu sëriñ bi jottali na ko boppam ñu sàmmonteeg yooyu mooy wàññi ndaje yi ba def masque yeeg di xaw di moytu ngir yooyu noonu waaye moytu ko taxul ñu koy def ndigalu sëriñ bi lañ ciy jëfee ci loolu noonu mooy waral ñu koy organiser nu yem noonu waaye bu njëkk dañ ko daan def di ko teg ci mbedd yi nga xam ne borom saret yi yeeg ñëpp ci lañ daan doxoo hmm. bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax am nañ mbégte bu baax a baax doon fegg ak waxtaan bi ñu daal lay bàyyi nga daal di tàggatoo ak message bi nga xamante ne yaa ngi koy lancé ndaw ñi lan waaw di am mbégte ak bu baax a baax di gën suñu bopp di soññewaat li ci jamono ja fi mu toll rek xam ne àdduna moom moo tëdd noonu yàlla indi wuñu fi ngir muy neex rek tey mën naa def nii suba mu def nii waaye lu am rek ñu xam ne ay jaam yàlla lañ kon nag wëlbati ko amaat koo xam ne kenn amu ko muy Serigne Touba waaw loolu war naa tax ñu gën a góor góorgóorlu bu baax a baax a baax gën a yokkaat taalibe gi waaw ab sëriñ kenn du ko digal fi sëñ daal topp ci ginnaaw sëñ Muntaxa rek di mu yàgg fi te wér di bàyyi tere yi ne noonu la rek noonu la ndax euh, ñu digale day lu gën ci ñun waaye duñ xool ndigal loo xam ne dafa jóge faneen wala ci yooyu ñun sëriñ bi rek mooy suñu bëgg-bëgg mooy suñu lépp waaye nit na boo ko bëggee waratoo xool la naqari wala la neex xanaa di ñaan sëriñ beet comme que mën naa wax ak gars yi rek waa du luñ koy digal sax dañuy dagaan rek ndax nit ñi comme que jamono métt na ba ñëpp di kii waaw yërmande ji gën a yaatu comme ci li nit ñi mën a am luñ liggéeyee ndax dama jëlale ñoom luñ lekk wér na ma ne bu ñu yoroon luñ lekk ak luñ jox sëriñ bi sëriñ bi moo leen gënal lépp danañ ko jël jox ko ko xam naa loolu rek moo leen metti ba tax ñenn ñi di kii ko def yëf waaye du question luñ lekk wala la leen ndax yàlla moom gémmiñ gum xar bu ne dana ci def dara waaye nit ñi xam naa yéene ji ñu am ngir defal sëriñ bi te duñ ko mënee noonu mooy mooy fees seen xol ba ñuy jàmmat yi yëpp waaye du question jàmbat day nuru jàmmat waaye dara waaye kon xam na ne waaw jamono ji ni mu demee yëpp rek waaye di gën a kii état bi mu gën a oyofal yëf yi bu baax a baax rek waaw nit ñi gën a moytu ndax loo gis rek comme ni ñu dajee ci marché yi wala yeneen am na nu ñu ko organiser ba ku ne de un mètre wala nangam yooyu ak jumaa yi tamit yi sàkku nit jullit ñaan mooy ngàndaayu jullit waaw te bërëb yi ñaanukaay bu ñu ko tëjee waaw duñ mën a gën a fa ne sax mën nga faa gën a mën a ñaane waaye mbooloo yi am na ci mbooloo yoo xam ne buñ dajee bu ñàkk ñu suñu borom ruus waaw ak toujours jumaay Serigne Touba ji leer na ma ne buñ ko tijji woon rek yaakaar naa ne yëpp yu bëri dana dañ waaw loolu moom mën naa ci yaakaar bu baax a baax waaw di am mbégte ak kontaante bu baax a baax di masaw ñëpp rek ndax jamono ji moo toll foofu képp koo xam ne am nga loo mën a dimbalee nit ñi rek waaw wala wax soxla jamono ji tey jamono ji toll foofu ñu gën a dimbalante gën a oyofal xol yi bu baax a baax yéenante jàmm lu waaye sa bopp nga yéene ko sa morom waaw te gën a ñaan suñu borom gën ñoo nangul suñuy jaamu yàlla bu baax a baax a baax waaw jëlee fi feebar bi mu jeex doon loo xam ne ñu fàtte ko mu bañ a ñëwati te la ci kanam dàq di di gën a ña sëriñ bi daal ñu daal état bi rek lañ ci ginnaaw sëriñ bi ndigal lu ñu digal moom ñu def ko waaw loolu moom ñu xam nga moom nag waaye defuñ ko loo xam ne comme méj ndax ñu ngi ci yeneen ak yeneen yoo xam ne sax lépp liñ ci defee ngir dimbali nit ñi rek waaw ndax dañaa kon ma doon sànq jaamu yàlla ci jaamu yàlla boo nekkee fee nekk fee ci biir ñii danañ soxla ndimbal li waaye ñii lii lañ soxla waaw ku ci nekk la mu yëngu rek nga fas yéene la nga mën nga jàppale ko waaw xanaa lu fi nekkul wala lu ñu mënul waaye muy ci aajo muy ci leneen lu mën a doon ci kàttanu yàlla duñ ci tànqam du nit benn yoon waaw surtout di gën a kiyaat bu baax a baax daal <laughs> kontaan nañ yéen kontaan nañ ci yéen bu baax a baax di ñaan sit beet yàlla suñu borom yokk yokk yokk ko ba mu bokk sit yi gën a kawe dinañ ci kawe seen njort mu doon ay télévision yaatu lool ci àdduna bi suñu borom mën na ko yàlla ñu ko defal def kontaan nañ bu baax a baax jërëjëf